salaamaaleykum mbokki internet yi ci à travers suñu seen YouTube Jaaba Info TV Facebook euh, YouTube Instagram Telegram ak Twitter euh, tey jii di talaata ñaar fukki fan ak ñeenti weeru octobre 2023 xibaaru nawetaan ci suñu 30e ñu dem fële ci stade bu Tassette fekki waa zone 11B fa jógee dinañ dem fële ci zone 11 bu Anéne ànd ci suñu correspondant bi ci lu fa asalaam comme nañ ko waxee rek bu leen fàtte abonné suñu chaîne YouTube Diobass Info TV fële ci zone 11 bi bu tase tey lañ seen dernier match match retard la woon sax diggante ASC bokk jom bu ak euh, kii di ASC euh, Mbogo Yëf bu Mbour Fouye ASC ñaari ASC nag dañoo mujj a kenn dugalu sa morom dara Euh, ñu fàttali leen ASC Bokk Jom dañ ko daanoon ci premier match am bi wala daan moo ko daanu wala doon boobu ñëw égaliser euh, ak ki nga xamante mu ASC boo fay poule boobu nag poule de trois la ñaar ñoo ci génn donc euh, moo nekkoon match bu neex surtout première mi bi bal bi daw na circulé na donc xaw a équilibré bu ñëwee nag bu deuxième mi mu bi ci la ASC Bokk Jom daal di ko dominer domination net donc euh, lu ñu naan demi camp loolu defoon kii di ASC Mbofu waaye malgré loolu taxul euh, mu dugal benn bal défenseur ASC Mbofu yi dañoo taxaw mais aussi am nañ gardien Mbofu yi bu baax boo xamante ne kenn na occasion yu am solo match bi eh, ñu dal di tembo kenn dugalul sa morom dara eh, provisoirement ASC Mbofu tental de qualifier fekk ASC Walidane eh, ASC Bokk Job nekk ci ginnaaw. bañ fa jógee dañu dem fale ci zone onze bu ànd démb nag am na dafa fa xawoon a am ci ay jongante ñu ànd moo Modou Dioum ci li nga xamante ne moom moo amoon foofu ci zone onze bu ànd. ngi fii si zone 11 bu Anin doon fi amal sunu championnat uh, populaire nawetaan mu nekk mu doon dox si waa poule A mu nekkoon si diggante Liberté bu Anin ak dégo bu Kër Bandëgëy mu nekkoon match bu amoon ambiance match bu neex ndax Liberté dafa waroon a gagné pour génn première si poulam euh, dégo bu Kër Bandëgëy aussi dafa bëggoon a gagné pour assurer qualification mu nekkoon match bu amoon enjeu bu yaatu neexoon na trop. ba footballé nak eh, ba am juroom ñetti minute si la liberté duggal benn bitam bu njëkk non lañuy dawé ba match bi daw ba ñu dawalaatee ñaar fukki minute ak ñaar liberté dugalaat ñaareelu bitam non la match bi mujjé jéxé liberté bu anin daal di mujjee daan déggoo bu kër bànd gi ñaari bal ci dara non la match bi jéxé kon liberté bi nga xamante ni mooy équipe bi nek bir anen wa deug fa yalla ñu ngi leen di féliciter di encourager déggoo bu kër Balla Gaye loolu moo nekkoon suñu programme tey suba nag dañuy noppalu àllarba eh, la ñuy footballaat muy dox si diggante waa si poul B la muy dox si diggante ASC eh, guy gi de Mbodiène ak eh, AJ Nafar mu nekk match boo xam ne tamit boobu match bu am jeu lay doon waaw loolu moo nekkoon suñu programme si àllarba bi baax bu ko defee rek xanaa di leen jox ndajeek eh, ba beneen eh, numéro eh, xibaaru nawetaan di remercier ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ñuy message ci suñu anniversaire bi di 24 octobre muy message muy appel lépp ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm.